ñun mbégte la ñu am pour ñëw euh, jël fourniture yi fii ndax éducation compétence transférée la suñu warugal la la lañu la tegu suñu ndodd su tegu suñu ñëwee tey di jàppale suñu xale ñun la ñuy jàppale te ñun mënuñu def lu dul remercier leen ci loolu ak wane suñu contentement ci xew-xew bi am fi euh, Il y a au moins 6 000 à 8 000 documents qui ont été offerts. Euh, di joxé ay téré ay fournitures scolaires dafa nek action gulet buñu commencé euh pour appuyer euh, les yu ndaw yi ak localité yi ak population bi nek fi ci sunu parce que les jamono dafa indi ne société fo nek munoo lijjanti rek sa fonctionnement nga bàyyi li parce que dimension environnement dafa am doole et dañ ci tenir compte. deux as nak def na démarche volontaire pour euh, intégrer euh, préoccupation sociale bi préoccupation environnementale bi ci stratégie de management. Euh, donc moo tax ñu joxe euh, tey fourniture bu subaa dinañ def leneen clôturer ay l'école ay euh, yeneen action